yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa ku ne mën naa natt boppam ne li nga tàmbalee gën a yëg nii yow yëgoo ko woon daaw kon kon kon xam nga ne mi ngi noonu léegi fi ne tey ñi doon jàq ak tiit sax ñi ngi sant léegi nag loolu li nga koy dégg ginnaaw bu ñaar dende kii di ko fonk kii di ko fonk koy fonk bët bu set nga gis li muy rawee ki ko dul fonk même doon ne man dama ñëw di màggal it bu may ñëw dinaa indi dara dama ci xas-xas leen benn daaw dafa am ku ñëw fii indil indil ma ndox indil ma pomme terre ñu bokk di màgg mu ne ma bu fekkee li ngay wax dëgg la nga ne ku sëñ Touba nee na ku ma ci defal nangam nangam dëgg bu déwee nee na indi nag ma ne ko jumaa jaa ngi ne bu fekkee sëñ Touba dëgg la wol boppam na ma jënd naa lol magal gi mom doy sondage bu wor mais xam nga magal si def sa xaliss sa poos wor juma ji dafa photo ak beus no boy moy lolou sëñ bamba ah, bamba rew mi bamba moko mom nangam coowaloo mais li nga andi da ngay ñëw ba delo do siaré dama né mourid day yew dama né bo amul lo def futal musu tangal fexé ba buñ añee ba nopi ko dugg ci biir way tangali yi bamba jang mourid yi mus mucc macc mucc <laughs> ah xolal da ngay fexé ba duggoo sa dara don ko ne kër gi nga dal dara du fa jexit yow fexeel ba sa dara dugg ci jar boo duggee ci oto di ñibbi di ñëw te fa nga jëm da fay dal day kii nga paasal ñaar maa ñi ma bokkal Versailles bi banque bi paas naa lépp ci magal gi la ah même yow boo amul loo def jar na nga taxaw di xool kuréel nga yóbbu ko na nga gis ku yori bagage diis nga jàppale ko am magal gi moo du lu ñuy seetaan maanaam am ngir la. ndigalul sëñ bi santal leen ma ci yalla mais du magal go xam na ngay ñew rek doon ko le da nga sañse toilettu loolu lepp man naa am ndax ci ci sante gi ndax inna allaha yuridu an yara athar ni'mati ala abdihi mais du rek ñew sangu ba seet tok yor sa téléphone wakal yunne fi do jang alquran do jang xasida bu ñu tok do yanu ci dabye ya te do ci def dara magal gi neex la bo noppé kàddu sob saan mais wuté wul am tourisme bo xam ngay ñew rek pour def da ngay fexé def dara surtout ndaw ñi gis nga gis ko koo xam ne na ci moom pour mu yomb li nga yor joxu ko touba Tuuba touba boko boo ko boy fay day yokku ba noppi te day gaw ndax buy dal muy dal moy sëñ touba bu ko defé magal gi nga bolé ci teggin juma ji bu dee fi ngay ziar bo ne tegg sa tank rek ni ke tumu ranki ji won te dem ba ñew mo fi ne jan war ba ko war jox moom de nee la ci serigne moom rasulullah wajhi ja'altuhu turaban na'lihi ya laytani la yurani bi fadlihi neena man buma gisone rasulullah sama tank sama lex bilay lol tan ci run deug la teud mu jaar ci kon yow ndax yuxu wala saga wala wax lu wulul wax war na la ci wet wet manam boy dugg dekk bi rek war nga yegg war nga sentir sa yaram war na sentir ne ma ngi dugg ci dekk bu sel bo xamne ki fi nek moy sama yaakaari aduna ak alakhir ci bam ma andale sama teggin andale sama dal ba ci fi ndigal parce que mourid mourid mom fora moy ndigal dama ko wax ba tay dama ne seigne muntaxaa bu ne won na ngeen mu ngeen muru ay saku ceeb bop mourid jaring sit ab saku ci wala nek ndax mo lay jariñ mo lay ar ndax mo nu gëna xam mo nu gëna te mo nu gëna yor mbir te lu mourid koste koste ci sëñ Tuubaa mënoo seen seigne muntaxaa lam ngeme wax ngi wo ko wax fam yegg ci dogu ngi wo ko ki tax sëñ Tuubaa yonente yëbu malaaka yëbu loolu ak dogalu kon nag ndax rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana